jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy yéesu ci kër màrt ak maryaama nettali bi mu ngi cosaanoo ci luk saar fukk aaya fanweer ak juróom ñett ba ñeent fukk ak juróom aaya ak juróom benn saar juróom benn aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak benn ak ñaar fukk juróom ba fanweer ñett saar juróom ñaar aaya ñaar fukk juróom ñett ba ñaar fukk juróom ñeent dëkku betani mi ngi féete yerusalem ñaari kilomètre yéesu ak ay taalibeem daan nañu fa jaar bu ñu daan dem yerusalem benn bés bi ñuy tukki yeesu ak ay taalibeem agsi ca dëkk ba foofa ab jigéen bu ñuy wax mart daldi leen ubbil buntam amoon na benn rakk bu jigéen bu ñuy wax maryaama ak benn càmmiñam bu tudd lasaar yéesu tàmbalee jàngale fi mu toogoon maryaama toog ci weti ay tànkam ngir déglu li muy jàngale màrt gis ne rakkam dimbaliwu ko ca liggéey ba fa mu toog ca wetu yeesu noonu mu ñëw laaj yeesu ne ko borom bi doo ci wax dara boo gisee sama rakk ji bàyyi ma ak liggéey bi yépp ne ko mu jàppale ma borom bi tontu ko ne màrt màrt yu baree ngi fees sa xol ngam ay téq-téq ndax loolu moo de de lenn rekk am solo maryaama dafa tànn cër bi gën te kenn du ko nangu ci moom beneen yoon am mbooloo mu takku ñëw ci yeesu yéesu yéeg ci kaw tund wi daal leen jàngal lii yéen ñi xiif te mar njub barkel ngeen ndax dingeen regg mu teg ci ne bu leen dajale alal ci àddina fu ko maq ak xomaag di yàqe ak fu sàcc di dugg jot ko waaye dajale leen alal ci laaxira fu ko maq ak xomaag dul yàqe ak fu sàcc dul dugg jot ko ndaxte fu sa alal nekk fala la sa xol nekk itam bu daan ci mbirum dund yéesu daan na wax bu leen seen bakkan jaaxal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 mbooloo ma daldi waaru ci njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañsañ bu seeni xutbakat amul fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii waaye jëkkale na wut nguuram ak njubteem te loolu lépp dina leen ko ci dollil Macë saar juróom benn aaya fanweer ak ñett walla xelu yàlla mi mooy joxe dund gi ñam wi jëriñul dara kàddu yi ma leen di wax ci xelum yàlla lañu jóge te ñooy joxe dund gi yowaana saa juróom benn aaya juróom benn fukk ak ñett